kon nag euh, loolu moo tax évidemment euh, mën naa ne yërmande dina daw suñ diggante ndax loolu ah, donc euh, sama sama collègue yi nañ faral di wax ne ñoom ñoom ñoom ñoom dañoo nii liste duñ def lu baax ak mais am na leen lu baax loo xam ne yéen a ngi koy liggéey quand Euh, lu baax la war nañ cee gën a góorgóorlu diir boo fi nekk te jaasi Macky Sall du la laal to ci góorgóorloo tuuti ci ferme Anida di nga am suñu ngërëm euh, lu tax parce que en fait dañuy wax agriculture mais il faut que ça soit rentable surtout pour des libéraux comme vous yéen a gëm économie de marché donc loolu foog mu am si ce n'est pas rentable eh bien nga mam xale yi dinañ fa jógee nekk marchand ambulant à Dakar wala jël gaal yi di dem am na luy économiste di wax revenu espéré am na ñu tuddee sax seen parti politique yaakaar mooy yaakaar mais suñu yaakaaree ne fii dinañu am lu ëpp lu ñu am dañuy dem et c'est ça le vrai problème donc il faut que vous fassiez de l'économie pas des histoires agronomiques là qui sont intéressantes mais ce dont on a besoin c'est de faire de l'économie agricole. Donc les fermes ANIDA, ça me paraît quelque chose de bon et à poursuivre. Maintenant, sur le coton, vous avez levé le pied, <coughs> donc euh, sur ça, Yakar Nane, c'est une erreur. Il nous faut renforcer le secteur du coton. L'arachide. La convention avec la Chine dañ ci war a génn dégg naa la nga ne joxe milliards pour 115 milliards c'est pas un bon indicateur. ce n'est pas un bon indicateur de développement d'abord il n'y a pas de raison qu'on subventionne la Chine ñooñu ëpp doole benn ñaareel bi jàpp naa ne les huileries doivent être aidées soutenues protégées s'il le faut parce que c'est quelque chose que nous savons faire et qu'il faut continuer à faire et donc là-dessus sur ce point-là je pense qu'il faut aller de l'avant et créer des conditions effectivement pour que euh, l'économie de l'arachide puisse avancer mais pour ça on a deux Les rentiers là, des engrais et des, et des, et des semences, je vous ai entendu dire que vous avez mis 15 milliards pour 60 500 tonnes, kilo. Bon, ces les enrichit. C'est ce qu'on appelle la rente, ça n'a Il faut supprimer ça. Moi, la suppression de la sonagraine. En tout état de cause, je ne vois pas pourquoi parce qu'ils sont de l'APR ou de je ne sais pas c'est le problème de fond. En économie de marché, les prix et les ventes doivent être des paramètres importants et donc qu'on doit déterminer au moins a priori kuy kuy kuy kuy kuy kuy jaay kuy defar oignon soo war nga xam au départ ñaata nga koy jaayee il faut absolument ça dans l'agriculture c'est une erreur coloniale de continuer à fixer le prix de l'arachide quand le paysan a fini de produire Ça, ce n'est pas de l'économie agricole, monsieur le ministre, vous qui êtes un monétariste. Le prix doit être fixé avant, ou au mieux dans des contrats plans avec des agriculteurs. C'est cette révolution-là que vous devez faire dans l'économie agricole, sinon on va tourner en rond. Je lisais le père Lebré, on dit la même chose que le père Lebré ans après. Ça veut n'a pas progressé à ce moment-là. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Léopold Yankoubakoli.